jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi ak seen télévision As-Samadiyya TV ñoo ngi leen ci ndokkeel lu baree bari nag di jiital ci nuyoo beeg euh, ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbakkeem Serigne Bachir xalif général kullu murit di ko ñaanal yàgg fi lool te ànd ak wér ba yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul mu yegale ko am ci ay ndam yu kawe te ñu ànd ko ak moom ñaanal ko njabootu Serigne Touba Xaadim Rasul gi yëpp taalibe Sëñ Touba ak sunu bokk jullit yëpp. mbokk yi seen télévision As-Samadiyya TV am mbégte lool teg tànkam ci pàkk bu tedd bi nga xam ne benn la ci pàkk yi nga xam ne a Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasul moom moo ko sancaloon boppam noo ngi fii kon ci euh, Touba Mbul mbul gi nga xam ne mbokk yi benn la ci dëkki Serigne Bassirou Mbacke yi bu ko defee nag. li yitte ji ak euh, tànki nemmeeku yi mooy nag ñëw nemmeeku si dëkk bi nga xam ne dëkk bu am am solo la ci taarix ci yoonu murit bu ko defee nag euh, ñu xam daara ji nga xam ne moom la fi sëriñ bi euh, sampoon ñu gëstu daara ji waaye itam mbiri dëkk bi xam ngeen ne ab commune la waaye itam siq waxtaan ak yenn ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ngi ci biir dëkk bi ngir mbokk yi ñu gën loo ñu gën ñoo xamale ak dëkk bi nga xam ne moom moo di Mbul di dëkku dëkkub Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul te tey jii nag mu nekk ci loxoy ku tedd ki a Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla fi ak loolu te ànd wér kon mbokk yi ma ànd ak sunu équipe bi nga xam ne moom laa àndal maam Thierno ak sëñ Mahmadan bu ko defee nag mbokk yi ñu dugg ci biir daara ji gis image yi waxtaan ak euh, yenn ci jëwrin yi ku ci mel ni kii euh, sëriñ Mahdiw mi nga xam ne moom la ñu booleel danañu ànd ak moom bu ko defee mbokk yi euh, siq ak i moom waxtaan yoo xam ne danañu xamale ak barab yu fuute nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir gox bi bu ko defee nag ñu xam bu baax a baax mbokk yi dëkk bu am solo bi nga xam ne moom la ñu war a indi tey ci plateau bi mu di Touba Mboul alhamdulillahi al-badi il akrami salaam kon nag ñoo ngi ci biir kër gi euh, ni ñu ko waxee woon léegi rek dugg si nañ ci biir nag dañuy ànd ak euh, jëwrin ji di sëñ Mahdiw bu ko defee nag moom moo ñuy présenté kër gi leeral ñu leen lu ci nekk naka la demee woon rawatina jamono Cheikh Mouhamadul Bachir sëñ Mahdiw kon ñu bàyyi la nga présenté ñu kër gi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidi anbiyaai wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al wa ala alihi wa sahbihi wa man tabixahum bi imaanin wa islaamin wa ixsaanin ila yawmi ddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi noonu leen nuyu baax yéen waa as di jiital ci nu bi nag ak siyaar bi sangu barab bi ni Cheikh Abdou Samad di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi lool di wéral ko mi ngi amal ajjataay yu am solo ak loxum buut ak lañ buut gu am solo ci ruq yi nga xam ne amaana moom bukkut ñi ci am kumba waaye nag bëgg na murit yi baree bari ak jullit yu bari jariñu ci tax muy muy jeex la nga xam ne moo fa newoon te ëmboon nit ñi ngir mu feeñ ba ñu ci war a jariñu jariñu ci ku xamoon sa xam dole doliku ku xamul woon it xam ne kon ndeke lii kon nii la demee Touba Mboul nag benn la ci barab yi nga xam ne Cheikh Mahamadou Bachir ibnu Cheikh Khadim moo ko sanc li jiitu sanc gi laajoon na ci ndigal ku baax ki ba jox ko ci ndigal bi demee ba di ko bëgg a sanc nag suñu borom ñëw akub dogalam ci sëriñ bi mu doon xaar demuk sëñ bi dal mu door cee jublu mi ngi ko sancoon ci atum 1929 am na it yeneen ñett yoo xam ne wax nañ lu xaw a rëcc loolu tuuti lu mel ne 32 31 lu ci ne am na waaye nag jëmmi ndigal li moom jotoon na ko njëkk sëñ bi dem bi mu koy waajee sanc nag suñu borom dogal ab dogalam kon xam naa ne jamono jooja bi fi sëriñ bi door jóge moom kenn xalaatul lenn lu dul ne tekk di wéyal sa jaam yàlla rek waaye benn yëngu-yëngu moom kenn xalaatu ko woon. bi mu ab diir nag ba dem bi daal nag ci laxasaa yi ñëw sanc ko ci jooju donte yeneen riwaay yi am na ci waaye moom moo baaxoo wuute. bi koy sanc it lenn dong moo doon yilla ji te mooy rawala lenn ci njaboot gi ak taalibe yi. ak ñi nga xam ne ndigalam la ñuy diglu làq leen foo xam ne dana mën a def lu mënta ñàkk ci ñoom waaye na njaboot gi ndax jamono daa tolloon foo xam ne fii mu toll léegi képp koo xam ne yaa ngi sama xel di jàngat da xam ne mag ñi amuñu moroom ndax da nga yëg jamono bii taxawaay bii nga xam ne njabootu Cheikh Mamadou Bachir am nañ ko te ki ne ci bopp njaboot gi fi mu ne ni di Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi seen borom yàggal te wéral ko. taxawaay bi mu am rek da nga ci daal di xame njàmbaaru sëñ Basiiru xame ci pëstéefu sëñ Basiiru xame ci gis-gis bu sori bu nekkoon ci Cheikh Mamadou Bassir ndax ba muy xalaata sañ ci dëkk bi boobu dëkk bi sori na soriwaay boo xam ne jéggi na dayoo du sori ay kilomètres waaye sori yoon wu làqutu amu melo te booba gis nga fii itam tolloon la Touba di jege jege ay xalaatam jéggi woon na nekk biir tubaa wala lu ci tubaa booba ñëw fi yombut aw yoon amut. fi ne nii yéen ñi bi ngeen ñëw ci tëli ngeen jaar te tëli bi mu fi amee yàggut moom ba mu fi ñëw ci wan yoon la doon aw ak yonoonu meloon jafe-jafe yu méttee mét la ñu fi njëkkoon ci jamono bi ñu ko door sañ ci nekke woon am ndox amu fi courant amu fi aw yoon amu fi lenn loo xam ne si rek lu mën a jàpp jumtukaay bu yembati mi ngi fi woon nekku fi am lenn lu nit mën a jumtukaay bu jàppandi amu fi woon te teewul mu taxawal li taxawal liggéey li mu liggéey ci njaboot gi lenn doonoon yi la ji mooy fexe làq njaboot gi ci barab ba def ci ñoom li mënta ñàkk ci ñoom ndax booba jamono toll na foo xam ne ndax wax nañ ne jamono bi fi bi ne kër gu mag ci njaareem meloon na melokaan woo xam ne eh, xumbaay beeg eh, barke beeg ñam yeeg yëngu-yëngu yu àdduna yi bari na lool donte sëriñ moom amu ci woon soxla amu ci woon yitte waaye mbooloo mi ko mi ko fay fekk ak xéwal yi fay ñëw tax na kenn nanguwut sori kër gi ngir loolee fa ne woon te doon loo xam ne ñoom dañ cee bët léegi nag loolu kilifa gu ci béy wut xel nag tenir ci compte ba rawale sa njaboot mën na am nañ war a mel duñ ko mel sëñ Bachir nag loolu la teel a xam tax mu daal di ñëw fàkk fii mu doon àll bu xonk cur metti woon lool jamono jooja def fi daara indi fi lenn ci ak njabootam nekk fi di leen jàngal ak yar ak a jubbanti jubbanti diine ngir ñu mel nañ war a mel bi mu defee ab diir nag indi na fi Cheikh sëñ Habib Mbacke di wayjuru sëñ Bachir mii nga xam ne moo yeesal daara ji mu wutu ko fi mu doxe jo doxeen wu yéeme moom moom sëñ Bachir waaye ci gàttal rek Euh, fii ngeen seen ñu taxaw fii nii moo doonoon penc mu njëkk ma miir bii suñ ganaaw nii fii la euh, ci pinc mi la bokkoon am na miir bu ne ci biiram boo xam ne fii la kër gi yemoon nga xam ne boo daan dugg kër Sëriñ Basiiru da ngay dugg sa ndeyjoor foofu la nekk néeg sëriñ bi newoon ba léegi ngi fi danañ dugg ngeen siyaara ko mooy néeg bi ñuy wax néeg siyaar sëriñ bi yeesal ko def ko néegub siyaar nga sëriñ Basiiru fa la dëkkoon bi mu génnee fii itam sëriñ Ayibu la jox mu dëkk fa te ku ci ne ñoom ñaar dëkk na fa lu ma lu man ñaar fukki at kon néegu néegu barkeel doo nga la mën a doon léegi nag jàkkee sëñ Bassirou yi jëm daan jullee ca bu penc mu njëkk ma fii la ne fii borno yaa ngi fi buñ ko xoosoon léegi ngeen gis ko ci biir sëñ bi sëñ bi sëñ Bass bi muy miir daara ji da ko daale ngir war maale waale ko waaye fii ngeen seen ban bi ne buñ xoosoon dañu gis ñeenti borno ya nee na am na yéene defar ko sëñ Bassirou foofu la defoon jàkka ji kër gi nekk nii penc mi nekk nii seen kanam bi yàlla dogalee nag jamono doxa doxa dox ba mu jot ci sëriñ Habibou booba sëñ Abibu mi ngi daaru Rahman gële ca wetu kër sëñ ma di Madiba la yoon fi ñuy waxoon nit ñi Uqbatul Mubaarak foofu la ko jëlee ci bëgg xam-xamam ci pëstéefam ci gis-gisam bu sori feex ba indi ko Tuubaa Mbul gii dénk ko daara ji ngir mu jàngale ak di ko yaral njaboot gi ak di leen wan aw yoon bi mu ñëwee nag sëñ Basiiru penc mii ngeen seen nii nga xam mooy penc mi ab làkkam la woon. waaye da ko daa am ci dongam yi mag yi ku ñu wax sëñ Matar Kan la woone ko daggal ma ci làkk bi téeméeri metar ber ko daggaar yeneen téeméer dolli ca te buñ sosaloo nga xam ne téeméer yi mu ko njëkk a daggaloo am penc la ko def daggaar yeneen téeméer def ko kër boppam daal di wax suñu ayib ne ko mu wëlbati buntu kër gi ñu bokk uuf penc mi wan ginnaaw waa dëkk bi du wan ginnaaw baleen waaye wan ginnaaw ñu xam ne daal bukk ñu ëpp jëm ñoom diine dong leen ñor ngir war a ngir bëgg a sowe daara ji sowewaale itam seen diine téeméeri mètre yooyu ne seen diggante ci la def jàkka ji yi nga xam ne moom ngeen gis noonu foofu la daan jullee bi mu toxalee ji moom sëñ Bachir ak sëñ Abibu bi mu fi nekkee bu ñaar bàyyi waa dëkk bi nag ak seen yëngu-yëngu yi àdduna fi la marché bi ne fi la école bi ne fi la hôpital bi ne fi la commune bi ne fi la lépp rek lu yëngu lu loo xam ne moom lu doomu aadama mënta ñàkk la moom waa dëkk bi lañ ko bàyyal daal di jëm ne daal di wëb diggu ñoom seen jàkka uuf seen daara ak seen njaboot seen donga ngir di liggéey seen liggéey noonu ñu la demoon ci njëlbeen gi bi suñ Basiiru jël seen nag noonu la def ak Abibu noonu la wéyal ab liggéeyam fii moom suñu Abibu ba ne mu delloo Tuubaa miir bii ngeen seen boba moo doon miiru kër sëñ Basiiru fi mu yemoon daal di uuf penc mi nekk sëñ Basiiroo ngi nii fii la sëriñ Basiiroo dëkkoon def na fi ñaar fukki at bi fi indee sëriñ Abibu nag jox na bind boo xam ne képp kuy liggéeyloo borom xam-xam war nga cee bind ba mooy moom sëñ Basiiru daa génn ab néegam jox sëñ Abib mu dëkke néeg mu nekkoon moom mi doomi sëñ Tuubaa daa génne ba jox sëñ Abib ngir mu dëkke waa këram jox waa kër mooy jigéen ñi muy mbir mu yéeme di bind bu tooy xëpp boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi toxal ab sëriñ daara mbaa nga di ko samp ci barab mbaa nga ne ci barab ba nga indi ko fa ngir mu wut la ci liggéey bi war ngaa bàyyi xel taxawaayu sëriñ Basiiru boobee. léegi nag génn na waa këram fat waa kër sëriñ Abibu génn na jëmmi boppam ju tedd ja fat sëriñ mi muy liggéeyloo daal di daggalu fii nag ci penc mi téeméeri mètre comme ni ma ko waxoon léegi def ko penc daggaat yeneen téeméeri mètre def ko këru boppam. wax sëñ bi mu wëlbatee fii buntu kër gi ñu bokk uuf jàkka ji uuf penc mi moo indi lii kon ñu dugg fii ci néeg bi nga xam ne fi la sëñ Basiru duggoon fi la Basiru sëñ Basiru dëkkoon. Cheikh Mouhamadul Bachir sëriñ Bachiru mii di aw turandoom di doomi sëriñ Abibu moo ko yeesal defaraat ko nii mu mel nii def ko nag néegu barkeelu gan gu fi ñëw ñu ubbile ko nga siyaare barkeelu ci barkeb mag ñu baax ñu fi doon liggéey bi sëriñ Abibu bi sëriñ Bachiru génnee nee bi dem sañ fële këru boppam sëriñ Abibu la ko jox mu dëkk sëriñ Abibu sëriñ Bachiru nekk na fi ñaar fukki at sëriñ Abibu mi mu ko wutalit dëkk na fi ñaar fukki at moom it door a tuxu Tuubaa néegu barkeel baa ngoog bu ko defee mbaar mi suñ ganaaw moo doonoon jàngukaayu xam-xam bi fii la sëñ bi bu daan jàngalee bari na ci kilifa lool ñoo xam ne suñ borom dogal na ñu jaar fi jàng xam-xam ci moom. lii ñu ñu leen wax mi ngi amoon ci atum 1947 ci la ko sëñ Bassirou toxale woon fële ca Darou Rahman indi ko fii ci Touba Mboul 47 ba 69 fii la ko nekk. waaw dëkk fii ci nekk suñ Basiru bii di jàngalee xam-xam joxe bind fii waaw moo daan génne boppam moom suñu Abibu eh, lii mi ngi amoon ci 1947 bokk na ci eh, génération bi nga xam ne jàng na fii jamono boobu ci ñi ci gëna a fës muy sëñ Meñaaw Gay mi ngeen xam nekkoon xalifab sëñ Mouhamed Lamine Gay jëmoy bokk na ci sëñ Muntaxa Basiru mii nga xam ne mooy xalifa général des mourides tey jii wax nañ ne bi sëñ Basiiru di indi sëñ Abibu fii jamono boobu fekk na ko moom mu laxas ba nekk gànnaar di jàng waaye ci liñ gëstu wax nañ ne sëñ Basiiru du ko daal di bind lettre ngir mu delsi ndax jot na ci sëñ Abibu bi mu ñëwee it wax nañ ne da koo xamal ne ko lépp loo fa loo indaale nang nang ci diisoo moom lu ci ca wéyal na wéy lu mu ca joyante it bu ca réer moom waaye suñu boom dafa la doon tawfeex si Muntaxa ba moom daa yàgg am yitt ci xam-xam ba lam indi lépp a jag bari na lay lu mu jëlaat ci Sëñ Ayibu loo xam ne fii ko jëlaat ci moom wax na ma ci kàddu boppam moom sëñ bi ne ma fii fii lañ ma dëloon bi ma lee tuut la ma fi sëñ Basiru indi woon wax na ma it ne fii lu ne def naa ko fi ba ci wattu ay tool di dàqi golo sax def naa ko fi lu bari ci lim jàng fii ko jàng ci. kanamu sëriñ Abib Mbacke bokk na ci it sëriñ Cheikh Astou Fall bokk na ci it sëriñ Basiiru moom sëñ Fallu ñu gën koo xam sëñ Bas Fallu ak sëñ Cheikh Fat Takk Diop sëñ Cheikh Fat Diop ak sëñ Mamor Mbacke Mortala sëñ Basiiru Abdoul Khoudous ak rak ak rakam sëñ Abdourahman Abdoul Khoudous ak ñu bari ci borom xam-xam yi te lii mooy ñi nga xam ne ñoom fii lañ jot a jaar te bari ñu leen fekk si sëñ Mourou Mahfouz ñoom ci lañ bokk. Eh, Abdou Latif ñoom waaye nag fekk na booba liggéey bi sëñ Abibu tàmbale woon ko Touba ci boppam ci ndigalul Cheikh Moustapha al Karim génération bi njëkk a génn foofa bokkoon na ci sëñ Abdou Lahad Mbacké moom Cheikhul Khadim eh, sëñ Cheikh Gaynde Fatma sëriñ Mbacké Madina ba ni mu tuxoo Touba dem Misra jóge Misra dem Daaru Rahman ba ni mu jógee Daaru Rahman ñëw fii waaye ñii ma la tudd sànq nii moom mooy ñi nga xam ne. bokk nañ ci ñi jànge woon fii jamono ay ayibu ëpp nañ loolu ci mbaar mii fi la suñu ayibu daan joxe bind ba mbaar mii nag la sëñ Basiiru mii fi nekk yeesal def ko mu di bâtiment muy bâtiment bu mag bee nga xam ne moom la ci biir léegi foofu lañ toxal daara xam ji ngir dem nañ ba yëg ne fii xat na ci te it daa war a méngoog jamono itam waaye teewul mbaar mi ngi ko fi bàyyi di ko barkeeloo ba tey léeg-léeg ñu tëral ñu tëral fi ay benn benn léeg-léeg ñu téyele fi alxuraan léeg it bu ñuy jàng njàngam alxaan mu yaatu it ci mbaar mi lañ koy jàng si ngir barkeelu ci. taxaw ni moom mooy daaree alxuraan ji sëñ ayub yi ni mu fi nekk lépp moom njàngaleem xam-xam mi la féetoo woon waaye nag am na mag mu am pësteef moom tàggatoon mu ne ci wetam waxtu wane di ko jàppale. te bi mu jógee Daaru Rahman eh, bi mu fa jógee ñëw fii ñoo bokk nekk bi mu fi bi mu fi jógee ñëw fii it ginnaaw bi la ko kookee fekk si muy ku ñuy wax taalibe mu ñuy wax Daam jóob mooy woy juru sëñ Amdi Diop mii yor daara jannatu te siiw loolu ci mbokki sëñ daara yi ndax ab yëngoom ak it yàggum yàgg ci daara ak jëflante ak ñooñ daara sëñ daam moomee nag la sëñ ay bi bu dénkoon daara alxuraan ji mu yor ko euh, moom sëñ ay bi mu féeroo njàngaleem xam mi waaye mës a nekk moom ñaar yooyu ñoo daan ñaar ànd euh, bu sëñ ay bi nekkee ci daara alxuraan moom euh, bu sëñ bi nekkee ci daara xam ni moom mu féeroo njàngam ma ba ba sëñ ay bi di noppi ci loola. sëñ daam këram a ngi nii ci wet gi waaye moom moo féetewoo Daaru Xaañ fii nag fii nag bi sëñ bi sëñ Basiiru yeesalee daare alxo daare ji di soo ak sëriñ sëriñ sëriñ Saaliw ba mu jox ko ci ak njabootu sëriñ Habibu bi mu laxasaa ñëw ngir dekkal si daara jooju yi nga xam ne moom la sëriñ Habibu yoroon daa ber fii daare alxuraan ji ber fële daare xam-xam ji ñaari bâtiment yi loolay seen yil la daare alxuraan ji moo nekk nii ëtt bii ngeen seen nii lépp ci la bokk li muy bi dañ ko tabaxee xam ne jàngukaay bi daa na ci kaw dëkkuwaay bi na ci suuf nga xam ne koy jàng rek leen di yóbbu ci kaw kaw gi waajal nañ fa lépp waajukaay yeeg naanukaay yeeg lépp nga fa nga xam ne bu ñu xasee ba dugg di jàng moom amatul wàcc ba keroog waxtu wi war a wàcc du jot bu ñu wàccee dëkkuwaay yaa ngi nii ci suuf amatul dem ci kaw luru yitte joo xam ne si ñor na loolu mooy mooy mooy mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ci am ngir mu dëpp ak jamono ak itam gën a mën a dimbali liggéey bi ba sorof sorof ji du bari ndax fi ne nii bu doon da ngay jàng ci kaw te ko am aajo wàcc ci suuf ngir dem ci aajo ngir doxe aajo sab liggéey mën naa sooxe bu doon te ne da ngay jàng ci suuf te ko am aajo dem ci kaw it liggéey mën naa sooxe waaye dañuy def ay waajukaay ci suuf def ko ci kaw nga xam ne a nekk rek lam euh, bi ni ma leen ko waxee woon léegi daa def sëñ bi daa def dëkkuwaay bi ci suuf def jàngukaay jàngukaay bi ci kaw euh, def ko nag ay classe juróom-ñaari classe yu mag yoo xam ne bu ci nekk nu mu néew néew néew mën naa jël ëpp fanweeri donga classe gu ci nekk it da ko tuddee benn ci tur yi nga xam ne moom la sëriñ bu baax bi daan tànn di ko tuddee ay barabam bii mooy daaru salaam bee mooy daarul minan bële mooy daarul xudus bële mooy daarul alimul xabir bii mooy daaru rahman bii nga xam ne mooy boobu jigéen ñi mooy daarul naim bële mujj mooy xosnul maab fii mooy sabilul huda nga xam ne classe gu ci nekk am na tur waaye mi ngi jëlee tur ci tur yi sëriñ bi daan tudd ay ay ay barbam rek bu ci nekk it euh, ab sëñ daara nga fa yor fa ay di jàngale. am na fi ruq bu ñuy wax sabiilul hudaa nga xam ne moom ñi nga xam ne ñoom it yàlla dogal ñu toll ci gàntu ndigal te teguñu ko fenn muy di réeroo seen i wayjur ci loo xam ne si dëpp wut ak sariya nga xam ne ci bakkan dong lañ ko rek euh, fu ñu leen di euh, pine ngir rek ñu tege ci aw yoon. jamono jii ñu toll daara dafa toll foo xam ne taxawaay bu ëllëgee gendarmerie du sonn police du sonn benn homme de boo xam ne day wër ko jubadi ab coonaam mën naa bañ a bari ndax lan day fekk daara jiitu ko ci ab liggéeyam ba jubalal ko ñëpp donte ñëpp jub moom lu jafe la waaye nag na daara am ab taxawaayam rek te liggéey la mu war a liggéey yàlla rek xam ku war a jub ndax moo xam moo mën a jub moo moo xam moo moo xamuk jub te te mën a jubal waaye nag ñun sabablu moo ci sunu cër moo ci sunu wàll kon nag. sëñ daar yëpp noonu nañ def li ñu war def rek te defe ko am xel defe ko ak sago defe ko ak nite defe ko it ak ñeewante fexe fexe ba defar rek ndax defar gi moo ci am solo kon ruq bu mel noonu am na fi ngir ñu mel noonu ñi nga xam ne ñu réer seen wayjur ñàkk a tege aw yoon ñu ñàkk jub ñàkk nangoo jàng te fekk yàlla xañu leen xel mi ñu fexe ba naxante ñoom ci anamu foofee ñu leen pinee bañ tege ci aw yoon bari nañ ñun jëflanteel suñu borom defal nañ ci tawfeex joo xam ne ju kawe suñu jot la wax dëgg yàlla ñu sant ko suñu borom kon jàngukaay bi moo demee noonu fii nag lépp ngi fi wanag yi wanag yi waajukaay yi moo nekk na nële ndox maa nga ca biir bu jàng jotee bunt bii dañu koy tëj bu jàng jotee am na am euh, neuf heures la ñuy dugg ci suba gi bu dee ngoon gi trois heures bu dee njël gi euh, quatre heures demi la ñuy yeew gën jaa yeex waaye nag saa bu ñu war a yéeg nag dañuy soufflé soufflé goo xam mooy mandargaal ne jàng jot na képp ku ne ci daal yi te xam ko lu mu la mën a lu la mën a fekk da nga bàyyi jug yéeg ci kaw bu ñu yéegee nag ba noppi fii ci bunt bi am na gardien bu fi boo xam ne day delloo bunt bi kenn du am sañ-sañ dugg kenn du am sañ-sañu génn ba keroog heure bi jot bu dee ko xam daa ñëw soxla jëwriñ ji moom day jëm ci jëwriñ ji ne ko diw moo la soxla bu dee ku ko war a gis ci biir liggéey bi dana ko ubbil mu ñëw bu dee ko a taaxeeru dana ko ne nee ko na dem ba heure sàngam waaye duñ nangu moom kuy dugg di yàq liggéey bi ci kaw da ngay war dox lu ñur mbaalu ko mëtut mbaalu mën a xaar te xarut bu defee gone yi ci kaw tam kenn du ci wàcc di génn dem fenn ndax bu dee ku bëgg a tuur ndox la wala am jëne it ju ma doon lépp ngi ci kaw kon kenn du génn ba keroog wàcc du jot bu wàcc jotee dañuy sëfliwaat ñu xam ne kon heure bi leen boole woon ak mbaar mi heure bu leen taqale ak moom jotaat na kenn ku ne daal wàcc dellu ay itam ba heure jàng di jotaat. fee ñu jógee ne léegi mooy daara alxuraan ji fii ñu nekk nii ci ni nga bi ñu dugg moom mooy daara xam-xam ji lii mooy bureau bi nga xam ne mooy bureau mudir bi nga xam moom mooy coordonné liggéey bi fii mu jàkkaarloo mooy salle d'attente bi nga xam ne ñi soxla directeur bi te mën a guñ koo gis duñ leen bàyyi ñu taxaw foofu nañuy kii toppatoo nañ ko ba mu baax méngoo naag fu nit ku baax maa nekk. ñoom it neen waajal fii benn waajukaay boo xam ne ku ci yitt dab da nga mën a dugg fii salle bi man fee waaj continuer toogaat di xaar kilifa gi <coughs> bu ko defee ñaa lii seen kanam nii nag mooy jàngukaay yi am na juróomi classe yu fi nekk yoo xam ne jamono yii nag ñaari ñoo ubbeegul ñoo taanu ci lañ nekk nii biñ tàmbalee liggéey bi dafa yàggut euh, juróomi classe yu mag ak salle de conférence boo xam ne buñ soxlaa mbooloo mi fi la ñu nekk. fii nii nga xam ne ëtt la nii seen kanam boo xamee ne jël nañ bind yi ci suba gi wala ci ngoon gi ba génn nag dañ mën a ci ëtt bii di ma raajan seen i bind ndax moo gën a féex waaye bu dee gi nag dañuy dugg ci biir classe yi tëju ba keroog heure bi war a jàng jeex ñu door génn programme bi yàlla defal nañ sutura ba nosu na tege nañ aw yoon ay résultats yu am solo mi ngi ciy feeñ ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam moom it nii fee demee muy dëkkuwaay bi ne ci suuf jàngukaay bi ne ci kaw daa wuteeg bii bii moom dañuy def bi ci suuf def dëkkuwaay yi ci kaw mboolem lépp loo xam ne daa yitteel njàng mi rek moom ci suuf la nekk bureau beeg classe yeeg maktab beeg salle de conférence beeg yëpp ñu ngi ci suuf bu dee néeg yi nga xam ne mooy néeg yi dong yi dëkk nag ñu def ko ci kaw R plus 2 la euh, premier étage bi am na ñaar fukki néeg deuxième étage bi am na ñaar fukki néeg te néeg yëpp néeg yu mag lañ te dong dong ñoo ko taaju ko moom mooy dëkkuwaay yi li ngeen seen lépp kon yooyu ñu romb suuf seen dëkkuwaay lañ moom euh, ñaar fukki néeg a yoo xam ne sëriñ bi dong yi rek tax mu def ko fi yëpp seen yëpp ci néeg dongee la bokk ak atu bu yaatu boo xam ne itam lu mel ne genre kuréel yi bu ñu demee ba bëgg répété loolu taxoon ñu dindi néeg bii néeg bii ci ba ci ñu doon kii yor mbokk fii la waroon a yem ceeroo ak fii waaye dañ ko dindi carrément ngir bu yàlla dogalee tey ñu bëgg a répété wàllu kuréel yu mel noonu fii mën a yaatu ci ñoom yaatu bu ko mën a defee ni mu amee ci kaw noonu la amee ci suuf bokk waajukaay yi ñoo nekk na la ca fond ak jàppukaay yi li féete am na juróom-ñetti wan ñeent yu def nii ak ñeent ñu jàkkaar beneen bi ànd ak jàppukaay yi moom am na yeneen juróom yeneen ñeenti wan muy fukki wan ak ñaar yoo xam ne ñu ngi fi diggante ay euh, sees ak samkaay ak jàppukaay ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk fii ci premier étage ñaar fukki néeg ngi fi lii nekk fii suuf ci premier étage bi nag moom moo répété wu ci deuxième étage bi itam waaw dëkkuwaay daal moom manqué wul moom doy na sëkk te bâtiment bi ubbi ko na féex na lool. Eh, fii ñu taxaw nii mooy buntu kër sëriñ bi téeméeri mètres yi ma leen tudd léegi fee ci biir nga xam ne moom la sëñ Bassirou daggaloo woon sëñ maxtaan ak kan téeméeri mètres yi fële ca daaje la tàmbale yem fii booba ci biir ab làkkam la bokkoon jamono yi bunt bii féete na lii ci làkk sëñ Basiru la bokkoon bi mu indee sëñ Ayibu nag daa dagg téeméeri mètre yi def ko am pénc daa daggaat fii yeneen téeméeri mètre def ko muy kër boppam muy kër gii ngeen seen waaw sëñ Basiru fee la dëkkoon ginnaaw nag indi na sëñ Abibu jébbal ko daara jeeg liggéey beeg njaboot geeg lépp daa ñëw fii nag ber kër boppam daal di jox ndigal sëñ Abibu mu wëlbati buntu kër gi ñu def nii ñu def bokk uuf penj mi jàkka ji mooy jàkka ji sëriñ Basiru daan jullee ginnaaw bi mu toxalee jàkk jële indi fii bi ñu wëlbatee buntu kër yi sëñ Ayib bu fii la daan jullee jumaa ji ginnaaw bi lañ ko fi ay naar waa Arabie Saoudite defal sëñ Muntaxa fii la ñuy a ajjuma waaye penc maa ngi nii tudd Touba Mbul fële moom doon biir dëkk bi yor yëngu-yëngu yi administratif bi administration bi euh, commune bi fa la nekk marché baak école baak mm, yu bari daal si yëngu-yëngu yi adduna yi fa la nekk fii nag moom. mag ñi moom dañoo bëggoon diine képp di fi dund te loolu yàlla nga leen ci dimbali ba fii nuy waxee ak yéen ndax kër sëñ baa ngi nii daara yi sëñ baa ngi nii jaamukaay yàlla baa ngi nii foofu nag bu fa dund bu fa diine bu fa diine dundut du ma dund fenn waaw loolu mooy yële bu ko kër sëñ Basiru nag moo nekk nii néeg sëñ Muntaxa nga ne muy néeg bu wert fa ñuy seen bu ñëwee foofee lay nekk. ok jërë ngeen jëf mbokk yi euh, jërëjëf sëñ diw ci nemmiku yi nga xam ne ànd nañ ko ak yow nga wan ñu barab yu am solo yi nga xam ne moo nekk fii ci Touba Mboul bokk na ci daare alxuraan ji daare xam-xam ji ak fi nga xam ne fi la sëriñ Bachirou njëkkoon a nekk ginnaaw bi la fi doog a indi kër gi fii nga xam ne moom la ñu nekk nii nag mbokk yi te dend ak ki nga xam ne moom la sëriñ bi dénk dëkk bi denk ko mu koy saytu ci anam goo xam ne anam gu mucc ayib la muy sëriñ Bachirou Mbacké ibnu Cheikh mun Mountakha du ñàkk nag mbokk yi ñu seq ak moom jotaay mu barkeelu ci ay kàddu donte kàddu yu tënku lay doon sax dina ko ci yëkkati bu ko defee rek wax ñu ay jamono fi sëriñ Serigne Bassirou Mbacké nekke woon gën a xamal mbokki taalibe yi dëkk bi nga xam ne dëkk jaamukaayu yàlla la ko sëriñ bi defoon kon sëriñ bi ñu ngi leen nuyu baax di la ziar di la jaajëfal ñu bàyyi la nga yëkkati ci ay kàddu incha allah. ok jërëjëf ñooy nuyu mbokk jullit yi ak mbokk yi seetaan télé bi As-Samadiyya di siyaar sëriñ Abdou Samad ibnu Cheikh Souhaïbou di ko nuyu lu bare bare bari di ko jaajëfal itam ci taxawaay bu rafet bii nga xam ne mi ngi koy taxaw ci yoonu murid wi ci tasaare jeexitali eh, mag ñi rawat na waa kër sëriñ ci seen taxawaayu rafet yooyee nga xam ne ku ko xam ku ne mu amal la njariñ te sëñ Abdou Samad gis nañ ne taxaw na ca taxawaay boobu taxawaay bu am solo boo xam ne dana fàttali ñu bari dana xam xamle itam ñu bari loo xam ne xamuñu ko woon ci ñoom kon yàlla na ko suñu borom fay ngeen ñu fay ñuy nuyu ñëpp ah, di yëkkati ay kàddu rek xanaa jëmale ko ci ni ngeen waxee rek ci dëkk bi ci jëmi Cheikh Modou Bachir ak dëkk bi nga xam ne sancoon na ko sañc ay dëkk yeneen yu bare bari ci lépp defoon ko ci ndigalu Sëñ waa xanaa dañ ci indi tuuti rek loo xam ne Cheikh Modou taxa moo ñu ko nettali woon wax ne daa am ay jamono muy wax ak sëñ Basiiru nee na sëñ Basiiru ne ko ah Muntaxa na ngeen fonk suñ dëkk yi loolu de na ko fonk bu baax ndax sëñ ñu ko digaloon ñu sanc ko sëñ Muntaxa nee na ma ne ko ah man ma defoon ne da ngeen koo def ci seen xalaati bopp rek mu ne ko déedéet mu ne ko mu ne ko mu ne ko sëñ ñu ko digal de ca buñ mu ne ko jamono yooyu mu ñu koy digali kum ko digalutoon dana jafe nga def ko daal dana jafe nga nga wut dëkk yooyu ndax boobu ñu ngi njaareem ca njaareem itam sëñ baa fa nekk. ñëpp di ko fekk dara jeexu foon moo tax mu ne boobu ko sëñ bi waxutoon rek da dana jafe nga def ko ca nee na boobu itam nag euh, euh, sëñ bi leen na ngeen wuti ay barab yu ngeen di liggéeyee ji dafa jaamu yàlla moo tax mu ne woon ne dëkk bii nag moom da koo sañ ci ndigalu sëñ Tuubaa dëkk yëpp xëy na ci la ko sañ waaye moom da ko cee ràññe woon moo tax moom loolu moo taxoon maanaam bi nga xamee ne sañc ne defe naa 1929 fii defe naa 1930 la ko sañc jamono yooyu daal Tuubaa Mbul gii nekkoon fi tam nekkin woo xam ne nekkin wu rafet maanaam jël ay mbokki taalibe yu bari yoo xam ne moom ak ay mbokkam yoo xam ne dañ fee nekk ak moom toj àll bi di fi joxe ay tool ñu ci bay di ci jariñu taxawaloon fi itam daara ñu fi jàng di xam jàng jàngal alxuraan ak di jàngal xam-xam ci loolu ci la fi indeewoon sëriñ Habibu sëriñ Habibu sëñ Basiru moo ci taxawaayam sëñ Basiru ko fi andi woon bi yàlla doole mu ñëw tam defe naa sëñ di nett leen ko sax yu ñëwee sëñ bi daal di daal daal di koy jox kër gi mu nekkoon daal di sancaat geneen kër gi mujj gi fii wax nañ ne daana fi nekk lu bare bare bare ah, wax nañ ne daana fi lu mel ne minan baa xadi ba muy bind bari na lum daana fi di di di mosaane fi lu ci bare bare bare dana fi làqu di ko bind ah, mu doon barab yoo xam ne ah barab barabu jaamu yàlla di barabu liggéey noonu rek la ko taxawale woon Cheikh Amadou ak Cheikh Amadou Bachir bu ko sëñ basiir waxee loolu sëñ Mountakha ndax kon xam ne ñoom ndekete ci ndigalu sëñ Tuubaa lañ ko sance moo tax ah, sëñ sëñ Bachir itam bi mu fi nekkee kon dafay mel ne lépp mu ngi woon ci yoon woo yoon woo la jàngale maanaam liggéey ak jaamu yàlla rek loolu moo taxoon Euh, boo mosaa ñëw ay daara yi tërbiyaa ngi foon yoo xam ne dañ leen di xam nga tërbiya li ci nekk rek mooy yar yarub lislaam yar boo xam ne ànd ak jikkoy makaarimal axlaaq jikko yoo xam ne jikko ju mucc xayib lay doon walla ko nga xam ne woyof euh, bañ a rëy euh, tabe lewet nga xam ne tërbiya daal kuñ ko def ci sa kaw ba noppi da ngay mel ne borom xam-xam bu buy jëfe xam-xam bu toog rek léegi nga xam ne kon nag Cheikh basir Bachir moon na fee daaree tarbiya eh, andi woon fi sëriñ Habibu mu doon fi jàngale ñi nga xam ne dañoo soxlaa jàng daanaka fii eh, mën nañ ne sénération boobee tàmbale ci xam naa ay mille neuf cinq daanaka ba quarante cinq wala mille neuf cent cinquante jëm foo jëm diggante boobu daanaka mën naa génération bi kilifa yu bare bare bare fii lañ jànge ci waa ci yoonu murid bi waaw bari bari na ñooy laaj ñu ne ñu ne ñu ne jaar nañ fii ku mel ne Cheikh bu baaxee mu sëriñ Massamba ak sëriñ Moustapha Massamba ak ku mel ne sëriñ Mountakha mii tey ñoom ñëpp bokkoon nañ fii di jàng ci sëñ Abibu kon kon kon mel na ne yoon murit ñu bare bare bare fi jànge ak ñu bare daal xam naa buñ kon lii man man man mën nañ fee lim lu yàgg kon kon nag loolu mooy wane ne li taxoon euh, sëñ Tuubaa digal ko dëkk bi mu sanc ko kon loolu Cheikh Ahmadou mi ngi ci woon ñi mu àndaloon ñëpp jàppale ko ci loolu kon noonu la demoon loolu nag di doxa dox ba euh, yàlla loolu mu delloon Cheikh Modou Mountakha Cheikh Modou Mountakha tam nekkoon ci yoon wi nekkoon ci yoon woowu sëñ Basiiru awoon mooy amoon amoon na fi ay daara alxuraan amoon na fi ay daara tërbiya ba naga ni loolu mi ngi dox waaw euh, euh, sëñ Habibu itam <coughs> mi nga xam ne Cheikh Basiiru bàyyi ko na fi moom itam jamono yooyu fekk tam ñu soxla ko Tuubaa lool wax nañ ne sax euh, sëñ Sohay bu ci boppam moo ne woon ah moom du sëñ Basiiroo taxoon kenn mënu ci wax dara waaye ginnaaw sëñ Basiiru làqu na nag kon kenn gënuñ cee yeey loolu moo tax ñu daal di koy e, ñaan nag mu ñëwoon Touba àggale àggale fa liggéey boobee foofu itam ñu bare bare bare ci kilifa yoon mel fa lañ jànge kon daal loolu ci tënk daal bokk na ci li nga xam ne mooy e, sancub dëkk bi ak li nga xam ne moom la làmboo woon. E, sëriñ Bachirou moom sëriñ Mountakha ñu ngi koy sant baax di ko gërëm moom la sëriñ bi dal dëkk bi dénk ko ko. mu koy saytu noo ngi koy ñaanal bu baax sama borom defal ko ci ay ndam yu kawe ci barke Serigne Touba Xadim Rasoul kon mbokk yi euh, waxtaan waa ngi noonu mënutoon a ñàkk ñu barkeeloo kàddoom bu tedd gi waaye dégg ngeen itam waxtaan yi nga xam ne jiitu na ko waaye gis ngeen itam image yi nga xam ne indi nañu ko boobaak léegi ngir doon leen jéem a xamale ak dëkk bi nga xam ne rek moom moo di euh, mbul nga xam ne ni ko sëriñ bi waxe kon Cheikh Mahamadou Bachir moo ko sànc ci ndigalul sëriñ Touba Xadim Rasul noonu la ko sëriñ bi waxee te muy doon lu am solo loo xam ne kon euh, dëkk bi kon ndigalul sëriñ Touba la bu ko defee kon ñu xamee ko noonu yaakaar naa ne kon mbokk yi euh, bu ko defee danañ jéem a ñëwaat ci yeneen jamono ndax lees fi war a wax ci ci ci dëkk bi mënee su koo tënk ci benn jotaay am na yeneeni barab yoo xam ne ci biir dëkk bi war nañ faa mën a waxtaan waxtaan itam fi jamono ji toll ak itam ni nga xam ne noonu la ñu koy saytoo ak li fi jot a nekk ci jumtukaay yi nga xam ne moom la jamono laaj yooyu yëpp allah danañ fi dikkaat ci yeneen jamono ngir uh, gëstu ko bu baax a baax a baax seen mbokk Mouhamed Bachir Amar àndoon ak uh, sëñ Mahmadan ak uh, maam Thierno ci wàllu caméra yi ñoo leen ko doon jot li As-Samadiyya TV di leen jox rendez-vous ci yeneen jamono ci beneen barab boo xam ne ba tey rek ci dëkk yi mel ni lay doon asalaamualeykum wa rahmatullahi